Eva ma xool sa fond d'écran téléphone. Hmm? sa fond d'écran téléphone. Oh, wala fii sa fond d'écran téléphone. général de Bamba. yee wala boog. hello. naka waar. fond d'écran. Mm, voilà. sama doom. dégg naa la naka bagage yaa ngi yi de. en téléphone bi fond d'écran bi. ñu xool fond d'écran bi. Ah, wala boog. ñu bi. Euh, mais wala boog. ah mais mbay ngay am fii. ñu xool fond d'écran bi. Eh, mais wala boog kii kan la nii. wala boog kii kan la nii. Cheikh Al Islam. oui. ma a sa fond de grand téléphone. Eh? Eh. pas à la légère nga ko de def. gis nga naturel. naturel ma <laughs> xool foo déclaré téléphone bi. ayca moo ngi xool si foo déclaré. kii la gis nga de gëm sa bopp. ah. génn bi damay tourner sama séquence bi Nebai. Ya nah, eh. eh, gul. Nah, kan iya. iya. iya, nah, kan, eh. Ya bay. Nakawar. Laikul. Ñu xol fo dekk rabi. Fo dekk rabi. Eh, neex la wax. Jugal xol. Xewla boges. Bagage geet. Naka la waar. Ñu xol fo dekk rabi Tan mo ci ne? Yeah. Mais wala bëgg sa bopp mon ami bagage yi itu na xol fond de grand bi ki kan sama yaay la bu sank dama laa wan sama écran déverrouillage. waaw fàtte laa wan verrouillage. waaye yàlla ni mami damaa jot appel. <laughs>